nga yor nguur bi mel ni préparé woo woon pour yor nguur ndax il faut qu'on le dise hein Macky yàlla daf ko nattut mu mu ngeer mu mer ngembu Macky amul woon ambition jiite Sénégal Macky dañ ko jàpp toroxal ko euh, nangu li mu yoroon loolu moo ko obligé mu wër mu wëlbatiku ngembu ne dinaa jéem a bokk ci jeu politique bi mais il n'était pas prédestiné sax à être un président de la République Euh, fóolem bii nag dafa exacerbé wu ci deux ans yi ñu weesu ci ngay seetlu ne Macky à tout fait pour faire régresser ce pays ci ñaari at yi ñu weesu soo leen seetloo dem nañu ba que manifestation ku ko def da nga la loi d'une manière extraordinaire et que tu mérites la prison ñun yàgg nañu manifester avant Macky Sall Macky mu ngi doon manifester. dañ doon manifester sax bu yàgg ba. même ci début wu règne Macky Sall ñu jàpp ñu yóbbu ñu commissariat de police téye fa ba ay 22 heures 21 heures ñu bàyyi leen ñibbi parce que tojoo yàqoo euh, rayoo laqoo defoo dara maanaam c'est un droit constitutionnel que nous exercions mais Sénégal dem na ba manifestation léegi délit dans ce pays déjà egg na ak Sénégal foofu muy benn ñaar wax sa xalaat ci réew bi nga xam ne dañ koo bokk ñun ñëpp Macky dem na ba criminaliser ko maanaam dem nañ ba jamono bi nga xam ne damay xool man télé yi di gis ay nit naan ah non gars yi ñoo gaaw la ñuy yóbbuwaate maanaam kenn ñemeetul wax xalaatam ci biir réew mi te réew mi nag wax dëgg yàlla santul sàll réew mi dañ ko maase bokk nekk ay nawle kenn ku nekk war cee am sañ-sañ mën cee wax xalaatam dans le respect bien sûr et ce que tout le monde a toujours fait mais wax sa xalaat ci réew mi tam dafa mel ni léegi jeex na ci réew mi euh, ba tey dans la folie ñetteel bi yéen tax yéen nitu média yi mais vous voulez avoir l' information parce que le droit à l' information ci constitution la nekk ñun am nañ sañ-sañ war a xam ni xew si dëkk bi mais bu jàppee télé yi ay làmb la ñuy gis ay ay ay ay clip ay émissions yu ñàkk solo euh, tellement que les gens avaient démissionné devant cette folie euh, de Macky Sall retirer licence u euh, un média muy Walfadjri nga xam ne kon Macky Sall àndatul ak sagoom lii mooy la réalité kii de après indépendance a judd kii de euh, kii de ab ndaw la bi nga xam ne jaar na fu metti ci biir jeunesse am maanaam en un mot c'est quelqu'un bi nga xam ne qui a connu la pauvreté maanaam Macky xam na ndóol xam na coono xam na sonn nit yi njortoon ni comme xam na ko bu ñëwee wax dëgg yàlla dina dina régler problème yu bëri yu amoon ci réew mi ñu bari am ci yaakaar mais en fait les gens se trompaient man jamono boobu yàlla daf ma dimbali woon ba ma ñëpp di xool le personnage ak toute l'histoire bi ñuy ñuy raconté autour man je regardais euh, la personne psychologiquement maanaam kii lan moo nekk ci ginnaaw xelam maa ngi fàttaliku en 2011 ñoom taxulaa yi man je faisais des campagne pour gars yi bañ a voter Macky Sall parce que xamoon naa ci lan la Sénégalais yi bëgg a dugg xam naa la personne dama xam ne nit ki nga xam ne dafa am égo bu yéeme nit ki nga xam ne moom dans sa tête victime la Macky est une victime Macky ñun même quand on parle de ce pays là dafa jàpp ñu ngi koy tooñ maam dëkk bi dafa mel ni moomeelab la moom day jàpp ni kii dafa maa contre daf may sànni xeer daf maa bañ alors que non non ñun bañ ñu ko ñun Macky Sall ñu séq ak moom relation bañante ndax yàlla daf ko jox nguur nguur yàllaa koy joxe te ku mu ko jox dañ ko war a nangu waaye nag suñ la bàyyeeg sa bopp nguur dafa diis ndax nguur attribut yàlla al mulk mbiru yàlla yàlla mooy al malik nguur kuñ ko bàyyeeg boppam dina ko dofloo dina ko sànq dina ko dugal ci guuta ndax yàlla kese mooy buur bu wér bi xam ne moo mat buur donc ñi xam ne waruñu woon bàyyi Macky sàll avec lui-même te waruñu woon bàyyi Macky Sall avec les faucons du pouvoir ndax euh, gis ngeen réew mi dafa am ay nit yi xam ne depuis régime Abdou Diouf ils gravitent toujours au pouvoir ils sont toujours avec le président tey tey tey tey. bu Bassirou Diomaye Faye bu nekk fee ci kaso ba nekkee président il vont essayer de l'approcher de le connaître de se lier d'amitié ak moom pour continuer bénéficier seen ay teranga di nga ñii nag président bu sànk ñoo la sànk ndax ils veulent garantir seen ay intérêts ils tiennent en otage le président en réalité donc man jamono boobu may wax gars yi ne leen yéen yéen da ngi naan góor gi na dem rek waaye waaye booy bi parce que jamono booy bi laa xool wooyee ma leen booy bi su ñëwee il fera des choses très graves kii daf ñoo woon boppam avant muy laaj nguur gi ndax soo xoolee aujourd'hui ñëpp dañoo maase nangu ni Macky ne respecte pas la loi maanaam c'est quelqu'un bi xam ne c'est pas un légaliste Macky faalewul yoon ñu yaakaar ay ay bon sens ay non Macky dina yërëm nangam Macky faalewul yoon te loolu il l'a prouvé au Sénégalais avant muy jël nguur gi Macky dem na voté xam ni la loi dafa wax ne da nga war a andi nangam ak nangam pour dugg voté mu ne je m'en fous damay voté par force te kii il n'avait pas les pleins pouvoirs kii ministre la woon waaw ki nga xam ne ministre la tu piétines la loi waaye ni faalewu ma yoon bu la joxee les pleins pouvoirs en tant que président lan ngay defee ci donc yi wax dëgg yàlla man xaw ma ñu mu bett waaye man bettu euh, ci li mu nekk nii nag cay caaxaan képp la dama koy ñaan mag yi génnal ci li nga ne ndax mag yi li mu nekk nii tabaxul kër te jëmeewul Sénégal kanam chaque fois damay fàttali ne le président en dehors d'un état bu ko dénk en dehors d'un territoire bu ñu ko dénk en door de du des richesses ak euh, euh, euh, nu may waxee sax mooy jëmukaayu maanaam yoonu dëkk bi xam ne ñu ko dégg moo ko war a mais le président moo war a garantir la stabilité du pays mais suñu dëkk bi ñun ñëpp d'accord nañ sa pays la il est divisé les gens ne se parlent plus dañuy jaarale sax léegi adversité ak animosité mu sommes adversaires c'est vrai ñun Macky ànduñoo ko moom ci lu muy dox doxalee dëkk bi ànduñu ak moom ci fi mu nekk di yóbbu dëkk bi mais du suñu ennemi et ay nitam il consider comme ennemi képp kee xamee àndul ak Macky et lii moo dramatique Macky Sall lii la def Sénégal ci 12 ans de régnam yi damay dégg ci télé yi ñëpp di wax naan noo Macky Sall son bilan matériel kenn mënu ko euh, lam-laamee waaye bilan immatériel am bi foofu dafa am problème ndax les droits ont régressé nangam mais dañoo juum s'il y a mot l'action du président Macky Sall ci bilan matériel am dans ce pays la ce mot la c'est l'échec Macky a échoué Macky a échoué sur toutes les politiques publiques te lii misaal mu siy jox rek peut-être mu naa wax ne ñaar la ñetti misaal la Macky dafa ñëw au pouvoir en 2012 avec un plan économique bi nga xam ne bon man tuddee ma ko woon sax plan parce que à l'époque ba mu koy lire benn 26 pages la woon je ne sais pas 26 ou 24 pages yoonu yokkute. yoonu yokkute bi c'est un chapelet de souhaits qu'on a agencé aligné dama ko xool ne lii c'est du toc mais la chance qu'il a mooy askan bi du vote ci ay programme askan bi day voter ci ay affinité suñu askan malheureusement on sait pas voter nit dafay voter parce que kii kat ah kii daa yaru de wala kii kat ah ñoo bokk sëriñ wala kii ñoo bokk dëkk wala kii day wax dëgg yàlla ah sama sama sama tel xarit kii moom xarital ma ñoo ànd maanaam yii mooy Euh, éléments yu sénégal yi majoritairement di voté ma leen lii de c'est pas un programme te lii euh, Macky mënul yóbbu dëkk bi ci lii ça je m'étais pas trompé deux ans après Macky si boobam il constate mu ne euh, la croissance du Sénégal est erratique elle était atone et que dafa am ay urgence sociale yu tax il faut mu bàyyi plan boobu changer cap maanaam Macky si boobam il constate son échec deux ans après être venu au pouvoir en créé en prenant un autre plan bi nga xam ne plan bi nag ngay xam ne Macky tapalekat la muy le PSE PSE du xalaatu Macky Sall chaque fois mu ne gars yi peut-être ñu bëri ils n'ont pas la culture économique mais émergence depuis les années 90 la tubaab yi def benn dossier tuddee ko Afrique émergente ils ont décliné trois axes yoo xam ne ñoo ne axes pays africains bu ñu ko deful du ñu mën a jëm kanam ils ont théorisé ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy les responsables de ce retard-là de notre de nos pays ñoom ñoo nekk di piller les ressources dans nos pays ñoom ñoo wëlbatikuwaat encore ils jouent pompier après être les pyromanes ne non émergence dañ ko war a dañ ko war a souhaiter il doit y avoir nangam ak nangam y a les préalables de l'émergence ñu créer le concept d'émergence qui est un concept creux en économie loolu ça amul solo parce que l'émergence mooy rek comment préparer un pays pour mu apte à pouvoir avancer et, et se ñu forcé ko PSE yi lu bëri lañu ko forcé naa si ñëw léegi yi amul amul personnalité maanaam nit la bi nga xam ne euh, ñu ko digal ay kilifaam bu ñu ko digal da koy def mu jël PSE boobu andi ko Sénégal may fàttali ni sur 54 pays wala 55 pays sur le continent africain 37 yëpp am nañu plan d'émergence ñu bëri ñoo yaakaar ne plan Sénégal émergent c'est un génie de Macky Sall c'est pas vrai le plan Gabon émergent moo jiitu plan Sénégal émergent plan Cameroun émergent plan Centrafrique émergente plan Côte d'Ivoire émergent même Guinée am na plan d'émergence plan Guinée émergent tous les anciennes colonies yi nga xam ne ils sont dans la dépendance avec l'Occident forcé nañ leen un plan d'émergence avec des marchés juteux yu ñuy jox des multinationales yu jóge seen dëkk yi un plan bi nga xam ne basé sur l'attraction d'idées sur euh, préparation le marché pour gars yi mën a ñëw jël ay marché sur le bradage des ressources jaay suuf Euh, jaay ressources yi joxe ay licence d'exploration maanaam lii yëpp lii mooy émergence te lii ñun ñëpp xam nañ ni mënul yëpp daf ñuy daf ñuy jëmale ginnaaw sax donc le plan Sénégal émergent mooy premier échec bu Macky constaté en 2014 xam ni li mu waxoon mënul nekk jéem na ko waaye dara doxul mu ne kon je change de cap lii ce sont ces mots il dit je change de cap en instaurant le plan émergent ironie de l'histoire euh, plan émergent ba ñu koy xaatim ba koy retenir c'était en deux jours yi nga xam ne en février 2014 c'était le 24 et le 25 février 2014 lii nag histoire chaque fois day bégee le 25 février 2014 si la ñu ñoom ak Amadou Ba parce que mu représenté le Sénégal yóbbu Sénégal sur l'autel du grand capital et de l'impérialisme occidental teg fa Sénégal ren di ko jox ko tubaab bi le cinq euh, février boobu 24 25 février ñu waroon ñëwaat def élection ñu xam ni seen candidat wax dëgg yàlla. amul chance su gagné mais loolu xam naa ni euh, dañ ci ñëw ci kanam Macky kon constaté na échec gu politique muy benn yemu ci Macky il décrit plan Sénégal émergent lan la fa yéene def un Sénégal émergent à l'horizon 2035 euh, un état solidaire dans un état de droit bon solidarité Sénégal moom man dama leen delloo bi yéen ñëpp ndax un peuple solidaire Macky a su le créer sincèrement euh, pour ku sincère rek xam na ne Macky n'a pas su euh, créer les conditions de renforcer la solidarité ak la stabilité des Sénégalais muy benn état de droit ndax dañoo dellu ginnaaw instant bi yéen ñëpp bu mu leen laajal maam dëkk la nga xam ne dëkk boobu kon la souveraineté n'appartient pas au peuple ndax dans tous les pays sérieux du monde élection yi war am dans quatre ans sax ñëpp xam ne date tel at suñu si tollee tel weer on aura une élection <coughs> constitution Sénégal buñ ko xoolee rek chaque élection xam nañ kañ la war a nekk fii ba normalement fii ba 2006 cinq ans la xam nañ ne dernier dimanche bu weeru février la maanaam dans un état sérieux dañuy am lisibilité sur le jeu électoral ordinaire la nekk euh, ñu bëri ñu toog seen xel daal ñu toog di am yaakaar naan non dina jël décret non Macky xanaa doful c'est que ñooñu ils ils méconnaissent l'homme dañoo xamul nit ki ndax amul limite lépp lu nit jàpp ni noonu lii dina ko jomb loolu Macky jombul loolu c'est que moo tax article yi les pièces yu gars yi war a joxe ci élection présidentielle di wax ne nangam ak nangam dañu ko war a joxe man dama gëm ni examen psychologique approfondi euh, dañ ko war a defal candidat yi daa am si ñoo xam ne yooyu nit de ay dof dëgg lañ te boo joxee nguur ngay xam ne kii dof la ndax euh, quelqu'un de raisonnable de réfléchi am na yoo xam ne du fa ñeme yegg gor sax bu séq ak ay nawleem am na li xam ne du ko sañ a def waaye ki xam ne amul limite wax dëgg